keroog ak tey moo nekk ñaari xar laa di joxe parce que man bugguma def lii di ëllëg ma def lu wàññeeku bon sëñ Aliou daf ñu yar daf ñu jàngal dafa naa ne alxuraan ne woon ñu duli laaw falan tajida lahu waliyan mursidan di bàyyi di këbut pour nga def sa taal bi wali yi kooku moom mantu ne di bàyyi di këbut xanaa wali yu cër waaye wu niw xol ak ruw bi bàyyi dikkee la yomb waaye nag boo doxee wali yi ndax da nga dox ba àgg ci mursid te ulaayika humu raasiduuna mursid mooy koo xam ne ci kuum ji ak waxam ji ak ji maanaam par euh, euh, si censure bi ak portable bi buñ bokkee numéro pour changer portable bi day booy laa rek mu kon sëñ Aly Niass la dikkee ak ñun nekk fi ak ñun Cheikh Baye Aly man conférence bi nag damay sant yàlla ci ni ma amee ci yàlla jëm jëlee ko ci ñoom Cheikh Baye Aly masha nga yàlla walan ko jëlali sunnatullahi tabdila yàlla dafa am sunna yonent bi am sunna xulafaa rasidina am sunna umma muhammad yi am sunna walan tajida li sunnatillahi kon yàlla moo yafal ne xam na sunna yonent ne man ahyaa sunnatii kon moo yaxal ne am na sunna aleykum bi sunnatii wa sunnati xulafaa'i raasidiina kon moo yaxal ne ñooñu am nañ sunna man sanna sunnatan hasanatan ilaa yawmil qiyaamati ilaa yawmil qiyaamati jéem naa ko ci yokk man sanna sunnatan ne neneen la ko mottalee dégg nga kon ci euh, sunna yu rafet yooyu nag nga xam ne yàlla rëddal na ko yonent bi bokk na ci yàlla jaam bi deful dara dara dara dara dara mu wëlbate ko takku parce que lan def ba ko taggee moo ko ko may niimal xat innahu awaab awaab boobu leen yàllaa ko def ci moom bu ñu toon jaam bi ak moom rek du ko xam te yàllaa ñu wëlbate ko taggu ko dafay am koo xam ne waarisul ilaahi la qudsi la su loolu nekkee ci moom dafay waral ko ne tagg koo xam ne lam ko taggee moo ko ko def Cheikh Baye Hadi li taggee yëpp moom moo ñu ko defal ak waarisu muhammad yi mooy yonent bi boo defaan lu baax ci saaba yi doon tala fi ko fi ko defee fi ñu koy waxee ñu la jublu wutal fi waaye du tere moo ko saraata du ci lakk-lakkal xam nga am na ko soo ko defalee loolu baax pour mu wax ko ci biir mbooloo moo xam ne am na ñoo defe bañ c'est trop difficile ko man parce que day am na su ma ko waxee diw mer su ma koo waxee su daan bu ci mantu ñàkk a waxee tam du doo togg puudar lay doon rek li ñor li ñor suñ aadi nekkul foofu Cheikh Baye aadi nekkul foofu lépp loo xam ne defal nga ko Cheikh nit sëriñ yii la sëriñ ci xam-xam sëriñ ci jëf sëriñ ci jikko bi ci gën mooy sëriñ ci jikko sëriñ ci xam-xam mooy koo xam ne buy wax waxam ci alquran lay indi hadis lay indi aqwalul ulama yi nga xam ne balaghatul kalaami tibku muqtadal xaal balaaxa ulamaa yi ne mooy li ngay wax ndax dëppoo na ak xaalul tey bi xam nga bu nekkee ci ruuj nga naan machine yi mbay ya li ngay wax daa koorutu yi buy gënaa ci ruuj lañ nga nel rato yi chemin yi daabaa yi loolu moo d'accord buñ nekkee ci mbàcc nga naan ruuj ma ana chemin yi ana daabaaya d'accord mel ana jiile kaya ana saakoya balaaxatul kalaami tib ku muqtadal xaal bon eh, cheikh eh, eh, yonentu su boobaa dafay wax li nga xam ne moom la waa ji def jële ko cheikh bay aadi foofu la ne li muy wax ci man man man man xam man kokkiyaas duuf buñ kokkiyaas laa léegi bu gan nga dikkee ci kër gi ñu wan ko ko mu foog ne moom gan néeg bi rafet na tax mu ne taamu naa néeg bi fanaan bi mu duggee moo xalaata ba kër génn man koo kiyaas dara lu baax lu mooy lu mooy yàlla xas ka ne ma may taalibe Baay te loolu it maa ngi fekk ndaaree la parce que maa mujj ñëw ci taalibe Baay maa ngi fekk ci gannaaw ma raw li ngeen fekk ni ngeen eh, ni ma ñaawee ah xam ngeen loolu yéen ñëpp su ma jëf yëpp la mel ba dara ci baaxul ñii nag ñoo baax dafa baaxal si Aliou Diallo ku rafet njort nga ci man ku wax lu baax nga waaye man dama koy diggee ne waliyu yàlla buy wax ci yow lu neexut ci yow bu pare rek yàlla def ko ci yow mi ngi mel ni ngay tel téléphoné léegi téléphone bi jox ma téléphone bi fii fi mu ne xaaral waaye booy bës rek mu ne teg daal di sànnee ko fii booy bës mu ne teg ko fii ba juróom-ñaari arab yi pare nga oke mu ne mbeles mbeles googu nag ci la ci ngay xamee olof fii ñu ngi doon taxaw arootu dikk bàyyi ñes loolu la ñu indi booy tër bi yow de bës bindee bi de bës bu ñëpp ne mbeles rek yàlla ñëw loolu la ñu bàyyi ñes indil kon. ñu ngi sant Cheikh Baye Adi bu baax daf ñuy giire ci xam-xam bu gàmmoo suñ kanam duñu rus bu waxtaanee conférence duñu rus parce que bëri na sëriñ buy waxtaan li ngay waxtaan ay xam-xam la yoo xam ne naka sa fànn rek la sa taal rek jàng ni ngay coppati seen bopp parce que ñoom rek ñu ci boromi xam-xam boo juumee ñu ko koy xam ñi jàng ñëpp ko koy xam suñu Cheikh Baye Adi nekkul foofu kon suñ sëriñ ci xam-xam waaye suñ sëriñ la ci jëf. dafay lëppaayam meloon ku am tat mu bokk koog yow waaye suñ sëriñ la ci jikko joo rafet loolu ñu ngi koy tey bu baax a baax wax naa suñu jaayoon bàyyee la soo maam sëñ aadi mooy seen sëriñ mooy dañuy xat waaye jaayut ñu loolu jaayut ñu xam-xam jaayut ñu juddu jëf ju rafet jikko ju rafet loolu la ñuy jaay kon Thomas Koor ñu ngi ndokkeel euh, ay aja ak doxam di sos lii gis nga naxu day jàngale yàlla mubtada war na ko moom mubtada an lil ibtida mubtada yi dañ wax ne dañ koy rafaa parce que lan moo ubbi jumla bi kon sëñ euh, faraaj Moussa faraaj ak yaayam ñoo sos siyaare bi kon mubtada lañ waaye xam nañ ci rafaa de tey fu turu sëñ aadi àgg rek seen tur àgg na kon mubtada mi amee nañ ci rafaa tey buñ xamee buñ seetloo seen bopp seeni warsak ak seen kii xam nañ ne xamee nañ ci rafaat yow nag bu la mubtada rawee mënoo koy dem fexeel ba sa kër sëriñ nga dofa mubtada rafaat rek nga cay jëlee bu la loolu waaye ba ma nekkal xabaar ah, xabaar ji moom it moo dikk tax ñu xam ñu ñuy jëriñoo ci moom yéen it bi ngeen ko jàppalee ku demee ni sëñ Ousmane Diouf ku demee ni Cheikh Alaaji Babacar Touré biñ ko jàppalee loolu mooy xabaar ji su ko defee ñu ñu rafaa yi waaje kon nekkal mubtada ñu rafaa la nekkal xabar ñu rafaala nekkal ma xool parce que dama nettali naa ko ci Fuuta nettali waxi Cheikh Alaaji Muntaxa Fay xalifatu Cheikh Lislaam xunaa fi Gambi nettali naa ko ko ci Fuuta ku déglu audio yi da nga dégg ma wax kam may leen soo nekkee ma xool ma xool lu métti rek ñu teg la yónnee la ci naaj wu tàng laaj la sa xalal la géy loola te bu ci de da lay ah lii ko ko man yaa ngay def bu fekkee ne bidaayatu seyri la baax na su fekkee ne ci nga dëkk li nga yëppi fas yu njëkkoon a su ma takkoon a xale maa ko bon bul bul bul bul nekk loolu nekkal ma xool lépp lu métti rek ñu ne demal defi nangam demal waxi nangam kaay defi nangam kaay nga bég ca xam nga koy mujj ñu mujj def la naay bu faay ngay rabaa daraba Seydun Amran léegi ma foon la duur yëpp ci moom la aju ñu mujj naan duri ba Amrun def ko naay faaya képp ku nangu sa sëriñ di la fitnaal ngay nga di ca bég boo dee ma foon rek naay faaya ngay dox nekkal tam yiis ñu na la tam yiis mooy ku ràññeeku ni ngay joxee yow kenn la ni ngay tabee yow kenn la ni nga yaroo yow kenn la si xalaat ji baax dégg naa li wax sëriñ bi ne ko milliards yoo bëri ay loolu loolu mi ngi ci ngeen doxe ngeen doxe rek na koy doxe rek xam nga lu mel audio bii tey maanaam gàmmu gii tey te nekk Amérique ñaar bu ko xamee buy bës rek melokaan yi génn ñu wan ko doomi bàyyi mooy euh, connexion ak connecté ko audio ci wat whatsapp bi mi ngi te toxleen bi waaye nag balaa nga koy xool balaa nga koy xajtam mu fekk la Amérique dafay fekk nga am connexion te connecté wu yaar yooyu amee rek booy laal rek mbir mi yëpp nga tàll la ci sa écran bi joxe yaru xormaal yii ku ne ci yow yoo fëgg mu jëm waaye gën a nay janax dama laa ne la sënku ak mahabatu bokk sënku mooy buñ ne bàyyi nga tëb jooy yóobu buñ ne àddi yaay bàyyi ñaar dinañ ci paas nga joxe ñaar ke yow yaa ngi ci sa ut buñ ne ña ngay doomi ba yaa ngay teew fa lee nga ne nga lay ba génn ca loolu mooy sew xubbu nag ak xabbu masque yee leen utale yàlla day jàngale ne mba mbëggeel su dee ba tudd maa batu foofu nag la tasaruf gën a dikk loo bëgg rek ñu defal la ndax pepp mi biñ ko jiyee xarab yi doomi bàyyi doomi bàyyi xalifa daf ma nettali man dama bëgg ku may nettali ci bàyyi baara bi dafa ma nettali mu ne bàyyi dafa dem Maroc buur bi daal yoon yónnee ay soldat pour ñu garder ko bàyyi na lu nga ma ko garder mu ne bàyyi ba mu duggee Maroc dina fotteeku dañu for dindi mbaxana mi yi dineen soldat yi dafa leen dem man kam fii su ma kër sëriñ su ma kër sang laa ne man jaam laa jaam ci kër sëriñam du wanee benn manoore dëpp leen mun soldat yi dëpp siiwulu di gaanday bàyyi arab yi mu ne bi demee ba ca bi nga xamaloon Cheikh Tidiane ba Baye jooy di jooy di jooy di jooy bi ñu génnee arab yi ne ko bàyyi loroon jooy mu ne ko damaa dugg rek Cheikh Tidiane jot dama maa gàtt mu ne ko xay bàyyi man de gisuma woon mu bàyyi ne ko jaan bu bu bu duggee ci mbooloo mag ña daw bu nee toog fa la tax mag ña daw fañ koy bu nee fañ ko gisul waaye keroog buñ ko gisee bu dawee nu daw kon da leen jox Baye Niass ci doomam yi jox leen leen ihtiram jox leen leen taxasim jox leen leen haddiya xidma ihtiram yaru yii soo ànd ak yow euh, xasaba nga kuy doone doone ñaar xaala qadru ak xasaba qadru mooy ki xale bi dugg aji dee di ñu ne ko ngay am leen doo ko baal ñu bëri woon loolu nga jaar yàpp liggéey yàgg yàgg kër gi waaye sumul bi doo ko passé wala rubo loolu mooy qadru xasaba nag mooy ki nga xam ne moom day dikk taxaw bu fi fekkul kenn jël xalal ji yóbbu bu fi fekkee kenn ñu jël seeni xar mu jël waxtu wu si yarut bi mooy yaroo te dëgg ngay xidma te dëgg doo ci kutu doo wanaan laaj doo laaj laaj yoo bëri xànd ak ihtiram yow xasaba nga asalaamaaleykum